sunuy nuyoo ak sunuy ziar dañ ciy jiital Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ñu ñaanal ko mu yàgg fi lool te ba lépp lu mu am ci yéene liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim suñ borom defal ko ko mu kowe njortam lool ànd ko ak mboolem jullit yi ak taalibe yi mbokk yi nag ñoo ngi fii ci Mauritanie euh, particulièrement ci Nouakchott di capitale bi ñu am jataay bu am solo boo xam ne nii li ko waral muy ziar annuel bu Sarsara jataay bu am solo bi nag boo leen séenee soxna maam Mbacke ahlu café xel yëpp day daal di am xel yëpp day daal di dem ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne nii am na ko ci bis bu tedd bi waaye am na ko itam ci bërëb bu tedd bii loolu tax na nag nin ko àndee ak yéen ci waajtaay wi booba ak léegi ba tey jii ñu nekk fii ci Nouakchott fës yéene ànd ak yéen ci jataay bu am solo lépp nag jëm ci ziyaara bu am solo boobu kon ñu ngi koy ziyaar di ko ndokkeel waaye ñu fekk fii itam sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Moxtada Mbacke moom xaadimu rasul moom itam taxawaayam ci Sarsara kenn nattableetu ko jataay bu am solo bi nag nii leen ko fas yéenee euh, taxawoo euh, ñu am ay gan yu tedd Serigne Abdou Lahad Dieye ku nekk xam taxawaayam ci ëxlu kafe ku nekk gis ko itam ci wetu soxna maam Issa Mbacke ci ay taxawaayam yu am solo ñu euh, dande ak Serigne Sang Diagne moom itam taxawaay bu am solo boobu itam la ciy daal di taxaw ci liggéey bi jataay bi itam dinañ ci ànd ak ay jànkatu xasida ndax ku wax Sarsara wax soxna maam Issa wax liggéeyal sëñ Touba. sa xel day daal di dem ci xasida rawatina nag Serigne Bamba Ndiaye mi nga xam ne nii ku nekk ràññee na ko ci taxawaayam ci Sarsara ak mboolem jànkatu xasida yi fi nekk Serigne Moustapha Dieye sëñ moom sëñ Massamba wala sëñ Moustapha Dieye Massamba moom itam dina yëkkati ay kàddu kon. Euh, noonu la jataay bi fas yéene tëdd ñu waxtaanee ay tomb yu am solo ci départ ba Sénégal ba fii lenn ci taarixu Sarsara waaye itam ci werd mahfous bi nga xam ne ni Serigne Touba Cheikhul Khadim fii la ko jëlee ci yoxoy Seydina Mouhamed sallallahu taala alayhi wa salaam kon ngir jëkkante ak waxtu wi sëñ Bamba dañ lay jox rek nga daal di ubbee xasida ñu door a dugg nag ci waxtaan wi bisimilah. bismillahi arrahmani arrahim barkam sëriñ Tuuba amdi wa sukri liman kulli bihi saa laaridan doona suux سرسارا حمدي وسكري لمن كل به سارا لوردا دون سوق تنند سرسارا له سائر بلا سخات مسقاد لي من بني ديمان أنسى لله كل لدى أباره ماكمات من ارتلنا وفي أجم من سار إن الذي نيلا سرسار خد خسد سيارة فارخ دارين أو سار إن الذي نيلا سرزار أخوات قصاد سيارة فارغ دارين أو barke borom Touba jërëjëf Serigne Bamba Ndiaye ci njàng mu am solo moomu euh, di xasida gu am solo goo xam ne nii Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moo ko bindoon euh, di ko ñaanal mboolem ñi nga xam ne nii jaayante nañ ñëw fekk si ko fii ci Sarsara ngir siyaal ko kon yàlla nañu suñ borom tabaraka wa ak yonent bi mu doon liggéeyal euh, taas ci barkeem waaye tàbbal nu nag ci ñaan gu am solo goo xam ne nii mu ngi ko doon ñaanal mbooleem jullit yi rawatina ñi ko fekk si woon fii ci xasida goog kon sëñ Abdou Lahad dañ lay jox kàddu gi rek nga daal di nuyoo ñu door a jox yeneen mbokki taalibe yi door a soobu ci waxtaan wi bisimilah. aouzu billahi min asheytaani rajim alhamdulilahi rabbil alamin salaatu wasalaam ala rasulillah mbokk yi di ñuy seetaan di ñu déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi cheikh mahamadul muntaxa mi nga xam ne mooy yoon wi di yàlla sun boroom yàlla na ko fi dollee yàggal lool te may ko wér defal ko mboolem njabootu cheikhul xadim yëpp di nuyu itam sëriñ Sidi mi nga xam ne moom la jiital ci taalibe yi nekk gànnaar ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la a liggéey bi yëpp ñu ngi leen di ziyaara di nuyoo nag ci turu soxna maam Issa Mbacke ahlu café mu sëñ Modou Fati Xari moom sëñ Mazamba nga xam ne moo jiite mboolem délégation yi ñëw saara jóge fële ca Sénégal waaye di nuyu itam bokkam yu baax yi nga xam ne ñoom la feggool ñu man cee tudd soxna Ndey Mbacke moom soxna Bintu moom sëriñ Mbacke Madina te ren ñu tuddee màggal gi maamam ju tedd ja Cheikh Mamadul Moustapha mi nga xam ne mooy awalu xalifa Cheikhul Xadim di ci ndokkeel sëñ Ahmadul Mokhtar ak mboolem njabootu Daaru Xudus gépp tam suñu bokki Mauritaniens yi nga xam ne ñoom la ñu fekk si di ziar mbooleem délégation bi ànd ak soxna si yëpp di ziar tam waa Karawaan maa yomba yi nga xam ne ren eh, ñaari liggéey yi dafa nekk benn liggéey muy liggéey bi sëñ Tuubaa liggéey Gabon ak liggéey bi mu liggéey gànnaar ñu lëkkaloo. ñaari kuréel tam fas yéene ànd ba si yebal nañ délégation yu am solo ñu ànd ak soxna si ñun tam ñu fas koo yéene defee noonu bu ñu àggee ci Gabon kon ñoom itam ñu ngi leen di ziar di nuyu sëñ Sabara mi nga xam ne eh, taalibu Cheikh Massamba bu mag la boo xam ne moo nu dalal te lépp luy waram waramam ci bis bi mu def ko di nuyu mboolem délégation bi ñu ànd yëpp sëñ Abdoulaye. jërëjëf eh, sëriñ Abdoul Ahad ci nooyu am solo yooyu eh, comme noonu nga ko waxee rek di ziar mboolem mbokki taalib yi nga xam ne itam ñu ngi bàyyi xel fii ci Mauritanie ak Sénégal ak fépp ci àdduna à travers l' internet kon Serigne Sang Diagne yow itam nga bokk ci ñi war a waxtaan bi dan lay jox kàddu gi nga daal di nuyu mbokki taalibe yi ñuy seetaan bismillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwata illa billahi alil asim bismillahi rahmaani rahim aji xawa ijële daamoo fi xidmatin wa xablaho ma ramo mbokki julli di mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu comme noonu ko Cheikh Abdoulaye waxee rek ñu jiital si nuyoo bi Cheikh mun Mountakha ñaanal ko mu gën fee yàgg lool te wér ñaanal Cheikh Ahmadou Mokhtar bi nga xëy ne moo fi toogal mu Moudou Moustapha Karim waaye nag eh, di sargal ak nuyu soxna maam Issa Mbacke ahlu café ak bannu Mbacke bi mu àndal wépp waaye di nuyu mboolem waa Mauritanie yëpp di mboolem nuyu ñi nga xamante ne fenn fu nekk bàyyikoo nañ fi gox ngir teewe si bis bi ngir bokk si liggéey bi nga xamante ne soxna si mi ngi koy wootee ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul loolu rek lañ si doon tàmbale ba si kan si Modou. jërëjëf euh, Serigne Sang ci nuyoo yu am solo yu te yaatu kon euh, sëñ Abdoul xam naa yow la delloo kàddu gi laaj bi ñuy jëkk a samp mooy gis nañu ne euh, Sarsara ni ñu ko doon waajalee saa suñ ko defee ba bët set rek ca la ñuy waajalaat at ma ca war a topp. ci wàllum communication ci wàllum coordination ci wàllu wépp ba démb ci altine ji ci la ñu déparé fële ca Touba ci ab délégation bu takku ba agsi fii ci Mauritanie ci jàmm ak salaam trajet bu am solo la bu gudd la bu metti la ci nun ko war a waxee waaye lépp taw feex rek la mm. boo ko doon defaat ab tënk euh, ci liñ jot a jàll ba tey ji lan nga nuy xamal incha allahu waaw jërëjëf sëñ Abdoulahi ñu ngi lay sant baax di la gërëm di sant tam waa presse bi wax dëgg yàlla ndax may nañ ñu occasion ñu waxtaane loo xam ne jullit ñëpp la itteel kon ñu ngi leen ci sant leen ci gërëm ni nga ko waxee nag e, Sarsara e, maanaam e, waajtaay bi moom ni nga ko waxee saa wuñ ko rombee rek dañ koy tàmbaliwaat. ci ay coono léeg-léeg ñu bi ñu jullee fajar ba noppi lañu ñu déparé Touba bi ñu déparé Touba nag def nañ escale Louga ndax Louga li ko waral mooy soxna si jiite liggéey bi dafa am ay daayira yoo xam ne dañoo am yéene ci bis bi am ñoo xam ne danañ ñëw Sarsara am ñoo xam ne dañuy yéene rek ñoom bu gan ñi rombee ñu joxe seen i barkeelu ci xeeti ñam moo tax foofu ci Louga lañu ndekkee fa déparé fukki waxtu yi tegaloon na lu toll ak fanweeri minute Eh, ñu jaar ndar ñëw Rosso Rosso nag bi ñu fi egsee eh, dañu fay fekk ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko Mauritanie nga xam ne ñoom ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu dalal gan yi teeru leen ñu ñëw teeru ñi ci frontière bi wax dëgg yàlla dañoo jéggi sax ñëw Rosso Sénégal wax dëgg yàlla ñu fekk fa commissaire bu baax boo xam ne jàppandal na li waroon a jafe lépp cachet dossier yi joxe ndigal bac bi sax dañu ko woo mu jógee Rosso Mauritanie ñëw ngir jël si délégation bi loolu lu am solo bi nu jéggee tam formalité yi wax dëgg yàlla lépp jàppandi na ndax fekk na ambassadeur bu Mauritanie bi nekk senegal joxe woon na recommandation bi ñu ko demandé joxoon nañ ko tam list yi ba mu kase list yi ba yónnee ko ci frontière bi moo tax bi nu ñëwee ñoom euh, commissaire bi dafa kase liste yi rek joxe ndigal ngir ñu jàll. nga xam ne nañ fa daan yàggee ak coono ya fa daan am yu ci bari amuñ ko bu dee sax ci wàllu douane jàppale nañ ñu eh, ci wàllu oto yi ba nga xamante ni bii eh, am na ñu ci daan def yoo xam sax dañu ko mujj may. Eh, foofu tam suñ fa àggee soxna si dafa bokk ci aadaam sëñ Tuubaa dafa fonkoon lool alxuraan ba lu mu daan tàmbalee alxuraan la ko daan tàmbalee lu muy tëj tam alxuraan la koy tëjee moo tax tam jànkati alxuraan yi ñu àndal ak borom xam yi ñun bu ñu nekkee ci formalité yi ñoom dañuy nekk ci téere bi. wàcce nañ fa kaamilu alquran waaye ci biir naar itam Rosso am na fa ñoo xam ne xam guñ xam soxna si ak xam guñ xam sarsaara xam guñ xam sëñ sëñ Tuubaa tax na ñoom itam ñu indi seen di teraanga foofa ba yaakaar naa lépp lu jëm ci wàllu xéewal ci lekk ak naan amuñ ci benn jafe-jafe bi nu jéggee tam yaakaar naa ne yoon bi gis nañu eh, ne bari na ay montage mais montage bu ñu dem rek eh, kayit yi la ñuy laaj bu ñu ko xoolee vérifier bàyyi délégation bi mu jàll. Eh, Sabara mi ñu fekk si sax démb mi ngi may bàyyil ay vocal yoo xam ne mi ngi may wax ne ma ñu ngi leen di séntu deux heures du matin waaye yaakaar naa vingt deux heures et quelque lañ egg si Nouakchott bi ñu egg seen Nouakchott tam dañoo am aada délégation bi jàdd ci Serigne Sidi mi nga xam ne mooy kilifa dëkk bi Serigne Mountakha teg ko fi ñu saafonte ak moom donte nit ñi dañuy sonn moom itam mu sargal mbooloo mi dalal leen ñaanal ñu ci la ñu soog a ñëw nag fii ci Daaru Naim 6 te mooy kër Serigne Sabara Fall mi nga xam ne taalibe Serigne Massamba la boo xam ne kenn nattabliwu ko sëñ Massamba jaral ko lépp mbooloo mépp gis nga ni ñu tollu délégation yi waaye ñëpp moo leen daloo bi ñu ñëwee tam fekk nañ mbooleem eh, daluwaay boo xam ne eh, kilifa war na faa dal wala presse bi war a faa dal wala fi góor ñi war a dal ak fi jigéen ñi war a dal ba ci goney kafe gi lépp fekk nañ mu toppatoo ko kon noonu la yoon bi doxee ñu egg si egg si boo xam ne wax dëgg yàlla bu nu xoolee mboolem at yi ñu dem Sarsara Eh, bi ñu egsi tey moo gën a teel ci yëpp kon loolu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax mm-hmm. kon mbooloo mi délégation bi ñëpp egsi nañ ci jàmm mm-hmm. ci waxtu ñu ko doon séentu mm-hmm. kon loolu duñ def lu may man cee sant Sëñ Tuubaa waaye nag sant itam autorité yi muy diggante nguuru Sénégal ak nguuru Mauritanie ndax ñun itam dañoo nekk ci seen ron di seen ay doom kon suñu amee voyage bu mel nii nga xam ne lépp barke la sàkku barke ñoom itam lu ñu ci def ci ak jàppandi rek seen bopp lañ ko defal kon ñu leen sant di leen gërëm bu baax a baax sëñ Abdoulaye jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad Dieye ci leeral yu am solo yooyu waaye bu xel yi demee ci anam yi nga xam ne nii moom la fi Serigne Touba Xaadim Rasul dikke woon mm-hmm. tey ji ñu demaat ay at ci kanam ñu ciy dikk ci anam yu demee ni kon dañ koy gën a sant Serigne Touba Cheikhul Khadim mm-hmm. waaye wax nga ko léegi itam étape bu Louga nekk étape bu am solo ci euh, diggante euh, soxna maam euh, Issa ak mbokki taalibe yi nga xam ne ni ñoo koy jàppale ci liggéey bi mm-hmm. buñ ko waxee suñ xel day daal dem ci fédération ëxlu café bu ndakaaru mm-hmm. ci njiitu soxna Faamalo yaakaar naa ne di nga ci gën a dikk sax mm-hmm. ñoom itam euh, seen euh, teewaay ak seen euh, implication mm-hmm. ak mbokki taalibe yi nga xam ne nii Louga ñoom itam gis nañ ne saa su nekk dañ ci tàbbal seen loxo ci ay bernde wax nga itam tàbbal seen loxo gi nga xam ne itam autoris autorité ak administration bu Mauritanie yombal nañ ko lépp lu jëm ci formalité ak itam lépp lu jëm ci dugg bi ci biir réew Mauritanie waaye lépp day ñëwaat rek ci ki nga xam ne ni moom la ñuy liggéeyal ak li tax ñu jóg muy Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim rasul ba ci nin ëgsee fii ci dalal beeg yëpp am na benn daayira bu ñuy wax wa kaana ak ñoom itam daanañ dégg seen euh, jëf wala seen mbir ci euh, Sarsara wala ci Mor wala xadd karam na xam naa di nga ci gën a indi ay leeral donc kon boo doon defaat benn euh, leeral ci diggante fédération lu kafe bi nekk Dakar ak ñii ñu fekk si rawatina délégation bi nga xam ne ñoo nekk Mauritanie te doon ñu teeru di ñu yombalal yoon wi foofu itam mën nga cee gën a indiwaat ay yaatal tuuti. waaw foofu de yaatal yi ñu ciy indiwaat rek mooy soxna si yàlla suñu borom dafa dogal liggéey bi nekk liggéey bu yaatu euh, barab bu nekk am ko ko fa nekkal te mat lam fa nekkee. ni ma tuddee léegi waa Louga nga xam ne suñu bàjjen ay décembre soxna Njawa Sëy ak fédération bi nga xam ne ñoom sëñ Pape ak euh, ñoom soxna Maam Daara bari na Louga ay daayira daayira yooyu yëpp dañuy participer ñëw ànd ak ci liggéey bi noonu tam la ko amee ci yeneen gox yi moo tax suñu bàjjen bu baax bii di ajaratu faamaloo te nekkal ko Ndakaaru moom itam muy jàmbaar lool xam ngeen ne mbooloo mu bari jóge nañu Ndakaaru ànd ak moom di mbooloo moo xam ne tam mu am pas-pas lañ ci liggéey bi te soxna Ndey Mbàkke mu baax mii di sëtu Cheikh Mamadou Moussa da cee bokk moom itam naka jekk mu daan ci jàpp waaye ren biñ ko tuddee maamam tam euh, mu gën a yokk jàpp gi mu ci doon jàpp ñoom itam def nañ délégation bu rafet daje ak ñun Louga euh, jël nag ñi bàyyi koo Thiès ak ñi ci dëkk yi nga xam ne daal dañ fay jaar ba bàññi egsi Louga ñoom itam ñu ngi leen di sant cant yaato yaatoo yaatu te leen gërëm bu baax a baax a baax a baax waaye tam ni nga ko junjee léegi fii ci Mauritanie itam noonu la fi soxna si amee daayira boo xam ne ñoom damaa wax ne yombalaal nañu lu bari ci liggéeyu Sarsara ndax xam nga soxna si mënoon na ñëw fii jël ay hôtel mënoon na ñëw fii jafe-jafe daal yi bari waaye ñoom dañoo mës a jël en charge lépp loo xam dafa jëm ci fédération ahlu kafe ba lëkkalee euh, lu tolloo ñetti tur ci benn liggéey muy wala xadd karam naa euh, Sarsara ahlu café nga xam ne kon wala xadd karam naa sëñ bi leen ko tuddee Sarsara dafa yokk ndax liggéeyu Sarsara bi ahlu kafe dañoo gis soxna si xemem liggéeyam bokk ci ñoom itam wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na ndax lépp dañ ko ànd ak sëñ Sabaara ndax sëñ Sabaara dañ ko jàppe muy seen mag di seen waajur moo tax ñoom dañuy déplacé wu ñëw ci moom moom itam muy fa ñoom waxtaan nañ ba liggéey bi benn liggéey la taxawaay bi ñu doon taxaw dara yeesu ci dafa romb nañ ko daan defee ci pësteef ñoom itam ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm ndax bu ñu nekkee ay ndaw dem ba xeemem soxna si gis liggéey bi muy liggéey sëñ Tuubaa ñu lëkkaloo ak moom loolu du ñu mën a def lu may ñoom itam sant leen ci bu baax a baax a baax ñi demee noonu ci moom ñëpp itam ku ñu ci tudd ak ku ñu ci fàtte rek ñu xam ne temps bi ak émission bi ni mu tëddee waaye kon danañ lim ñëpp waaye bu ñu demee ci yeneen jotaay yi gën a yaatu incha allahu taala mboolem délégation fu mu bàyyi ko ànd ak soxna si ñëw ànd ak moom liggéey bi incha allah danañ ko tudd waaye daal taxawaay yooyu daal mbokki taalibe yi taxaw ba lépp sotti ni war a sottee. jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad Dieye ci leeral yu am solo yooyu. Euh, wax nga ko léegi ci euh, taxawaay bu am solo boobu nga xam ne nii mbokki taalibe yi féete fii ñu ngi koy def saa su nekk waaye di euh, sant bu baax a baax mention spéciale ni nga ko waxee léegi suñu mbokk taalibe yi nga xam ne ni ñoo féete wàllu presse bi mm-hmm. ñoom gis nañ seen taxawaay mm-hmm. ndax wax nañ ko léegi jataay bi mu ngi yaatu lool ci biir àdduna kon mën nañ ne ñu bëri ñu ngi ànd ak ñun fii ci Sarsara wala fii ci Mauritanie ngir waajal bisub Sarsara kon sëñ Abdoul Ahad dañuy desandi rek ba tey ci plateau bi ak thème bi nga xam ne ni moom lañ tànnoon bu ñu waxee Sarsara xel yëpp dem ci liggéey bu am solo bi fi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul defoon doon ko defal yonent bi nag ba am fa ay maqaama ay garaat yoo xam ne nii kenn mësu koo am te kenn dootu ko am euh, am na itam ay yóbbal yu am solo yoo xam ne nii indil na ko mbokki taalibe yi lu ci mel ni werdu maxuus mu nekk werdu woo xam ne nii xëy na bokk na ci charte murit biy dox waaye gis nañu ne xëy na murit yu bëree bëri dañ koy ragala soobu jàpp ne dafa compliqué te li ko waral mooy xëy na dañ koo desee gëstu kon werdu woowu tey jii ñu mën koo jàppee jaamu yàlla ak liggéeyal sëriñ bi boo ñu doon dikkal tuuti ci historique bi ak njariñ bi lan nga nu ci mën a tënkal. waaw sëñ Abdoulahi yaakaar naa nag jël ngeen tey thème bu am solo boo xam ne dafa lëkkaloo ak Sarsara ba kenn mënut wax Sarsara te waxoo werd wi nga xam ne moom la fi sëriñ bi jote waaye bala ñuy wax dara ci wérde wi dañuy njëkk a xam ne lan mooy wérde eh, sëñ Tuubaa jàngale te ci naan wax ne wird mooy lu ñuy toftal ci ginnaaw ak jaamu maanaam dangaa julli ba noppi wala nga def geneen xeetu jaamu yàlla moo xam da ngaa jàng alxuraan moo xam da ngaa def leneen ba pare nga toftal ci ay turi yàlla ak ay sëlaatu loolu mooy wérd wird nag sëñ bi tam wax na li muy jural ki koy def kullu wirdin yuridal murida li hadratillahi walan yahida siwahun intama ilal jilan aw intama li ahmad tijan aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum xatan ala sawaabi sëñ bi na bépp wird sëñ bi e, wax day maasale ndax gaa yu baax yëpp la jox cër dana bépp wird boo xam ne dafa tukkee ci ndigalul suñ borom jaar ci yonent bi ñëw ci nituk yàlla nee na eh, nitu yàlla kookee képp kum ko jox ci ay taalibeem tam def ko nam ko war a defee lam koy jural mooy dana ko teewal ca adara ba ca maanaam bare bi suñ boroom ya dana ko fa yóbbu maanaam dana ko yëkkatal ay maqaamam dana ko maytam ngërëmal suñ boroom su ko defee na ko borom tariixa bi loolu sëñ bi wax na ko kon lu am solo la su nag bu nu ñëwee nag ci wirdam moom eh, sëriñ bi ñëpp maase nañ xam ne bind bindkat yëpp tam maase nañ ci loolu moo xam Cheikh Amadou Bachir wala sëñ Mohamed Lamine Dagana wala ñu dul ñoom ne wér de moom mi ngi ko jote Sarsara te mi ngi ko jot tam ci weer wi njëkk ci weeru koor wi ko fekk gànnaar te xam nañ ne sëriñ bi mi ngi bàyyi ko Sénégal ci weeru gàmmu waaye weeru koor wa ca topp nag Sarsara la ko fekk fa la jote wér wi boo demee tam ci ñaari xasida yii day mel ni sëriñ bi doon na waajal. jotug wird wi ndax boo demee ci wakkaan àqan daa wax ne naajeytu rabbiya bi sahri ramadan sahril amaani wal muna wal fayadaan diyaale naa ak sama boroom ci saxru ramadan muy weeru koor diyaale goo xam ne dafa ànd ak confiance ba pare mu boole ci ay xiiwal yoo xam ne xiiwal yi suñu ko doon misaal day mel ni géej goo xam ne dafa dagg di wal nga xam ne amul yemukaay kon loolu day wane ne mi ngi doon waajal ne wérd waa ngi ñëw mu waxaat ne suñ borom tam teral na ma te teraanga ji e, bari na waaye mën nañ koo jiiñ wérd wi e, ci weeru koor wu nga xam ne moo ko fekk fara anil akramu tafri an yaduum bi an na nii xillun wa hibbun wa qadim waaye tam yàlla bu la mayee da koy sant kon cant gii mu santam ci wakkaan àqan day wane ne kon sant na ci yàlla jox gi mu ko jox wérd wi lahu sukuriya ilal jannaati daaril muna wal amni wal minaat te loolu mooy danaa sant sama boroom ba baa may tàbbi aljanna aljanna ja nga xam ne mooy këru xiiwal tey këru wóolute di kër goo xam ne ko fa tàbbi dootoo bëgg am loo bëgg te amoo ko waaye bokk na ci ajran kabiran wa zawaban wa jaza wal waxdu lii fii ramadaani najaza dafa mel ni kon ba mu nekkee gabon daa am lu ko suñu borom digoon nee na la ma sama borom digoon gabon nag gànnaar la ma ko joxee loolu tam mën nañ koo jiñ wérd wi kon préparation boobu day doon wane ne mi ngi doon waajal ne mi ngi jot xéwal ak suñu borom googu di alwirdul maxuus minallahi bi waasitati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam eh, yàlla tam balaa def ci bool dara da koy raxas ba mu set sëñ bi nag musa taq waaye étape bu mu toll moom day wane ne mi ngi jiima set ci bakkaar ak bokkaale ak yu ni mel katabtu wa kulli faaraga zanba wa zirka wa xablustara rabbi bi bi'tu wa tarka kalaami wa niyaati wa fi'ali tawajjahat illa man kafaani suu'a wa durra wa zakka waaye itam nee na yàlla fañ na aajoom loolu tam mën nañ koo jiñ wirde wi ne kon lim aajo woo woon ba jaaroon ci wirde si Ahmad Tidiane ko ba ci Abdou Khadir Jilaan aajo ko ba ci Abul Asan nee na suñ borom nag fañ na aajoom ci jox gi ko jox al wirdul maxuus ca yooya mu woon ngir bëgga naan ay kaasi ci boroomam loolu jot na ko ci Mauritanie xaddallaahu ajaati bi man jaa ana biha wa inni bihi biha abdan xadiman maal itqi maal itqi nag mooy da caa boore goreel ma mooy dootuma topp dara dootu contrôler sama dara ne moom wax nam ne am na nag yaqin léegi te yaqin alquran dane ku ko am bu la neexee nga dem jaratul nga fay def dara alimtu yaqinan an al mawlaaya kaana lii wa an al muqafa man xalaani yardahu beneen bi tam mooy beneen bi muy tëjee ci muqaddimaan mooy li wax ne yabu sunti daahi jumlata asa nabi mina nafi wa huwa barru zul jalbi wa nafi maanaam njariñ ya nekk ci yonent bi su fekkoon ab saako la bu ñu sol yonent bi dama koo yullil xam nga bu ne dama cee tibbal benn mbàttu wala mu tibbal ma ci genn leget wala mu tibbal ma ci benn biñwaar waaye dana def ma koo yullil kon loolu tam mën nañ koo jiiñ werd wi kon loolu mooy waajtaay wi mu waaj ngir wane ne suñ borom mi ngi koy bëgg a fay lam doon liggéey werd wi nag euh, ngi ko jot ci guddik ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar di laylatul xadar dafa mel ni rek laylatul xadar bi ñu laylatul xadar ren Touba ndax dafa nekk guddik alxames nekk itam ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru maanaam dañuy yendu ñaar fukk ak juróom-benn guddi gi ñaar fukk ak juróom-ñaar di guddik ajjuma googi ci la jot wérdi wi loolu tam wax na ca ne bi muy jot wérdi wi tam eh, amul intermédiaire digganteem ak yonent bi dane sëñ Muhammad lim ñu dagana dane wa fii sarsaara haza zakara annahu laqiya rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na ca sarsaara la dajee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na sax benn naaru gànnaar bu ko laaj ne ko bi ma déggee ngay wax ne sayidul amin jibril nga ci jóge moom nga ci jublu wala rasulaay nga ci jublu sëñ bi ne ko jibril ak rasulullahi kon dafa dajee ak jibril jibril day gunge yonent bi sallallahu alayhi waaye yonent bi nag moo ko jox bi waaye nee na ñoom ñaar ñëpp la doon giseel bi nga xamante ni bi itam jot na ci wird wi liy wane wéru lii ñu wax mooy ay boroom xam-xam dañ cee bind yoo xam ne ñoom dañoo wéral loolu ba pare itam ci biir wéral gi ñu ko wéral ñu nangu léegi li ma doon wax ne njëriñu yonent bi sëñ bi xaajalewu ko ko ak kenn waaye da koo jox lépp loolu am na génn xasida goo xam ne moom itam sëñ Mouhamad Lamine indi na ko ci na Nadim nga xam ne Cheikh Mamadou Bachir moo ko bind xasida googu itam sëñ Bachiru confirmé na loolu ndax sëñ Bachiru daa wax ne bismil ilahi abtadi nasman yufiit man kaana salimul fuhaadi yastafit yaa raimal kamali fi sahaada fi turuqi mazaaiqi salaasa tariqati sayqi imaami jiili wa tafdili suma abi euh, abbasi faxiril kamali man ugmuhu fi xasdi ugmul awal daal di wax ne li annahu li kulli wirdin sirru fi kilmatin fiihi adakal barru sëñ Basiru dane sëriñ bi euh, jot na euh, kado bu mag bu rëy bu kenn mënta mislaal boo xam ne tënk na cadeau yi gaa yu baax yi ko jiitu woon te wér da la ci jublu te mooy wirdi wi Cheikh Ahmed Tidiane yor ak wirdi wi Abul Hasan war yoon ak wirdi wi nga xam ne moom la Cheikh Abdou Khadir Jilani yor waaye wirdi yooyu nag nee na wirdi wu benn baat képp ci la mbuutum werd wa ne nee na nag sëñ Tuubaa bi ko yàlla bëggee may lu kenn amut wirdu wu ca wirdu yooyu ma tudd baat ba yor secret ba def koo jëlee ca wirdu wa ñëw tàbbal ko ci wirdu sëriñ Tuubaa nga xam ne sëñ Basiru nee misaal moomu ngir mu gën a leer nit mooy guddi mag nañ waaye guddi laylatul xadar moo ci gën na yàlla tànne guddi lay tu xadar def ci sirru boo xam ne defu ko ci yeneen guddi yi noonu la tànne ay baat ca werdi gaa yu njëkk ya def ko ci werdu Sëriñ Tuubaa ba mat moo tax ma ne la laylatu fii sahri ziyaam te mooy laylatu xadar ak tam saa sa nga xam ne ca yawmal jumha dañ cay nangu ñaan loola tam yàllaa ko ko jagleel nam jagleele ajjuma saa soosee muy nangoo ñaan jagleel ko weeru koor laylatul xadar ñu làq yoo xam ne yeneen làqu ko noonu la jagleele sëriñ Touba mu làq ci biir wirdam e, mbóot ya nekkoon ca wirde ñett ñi ma wax loola nag moom la risimi wax ci wenn bëyit ne fa aasa aasa sayxu miiraasuhum min yaddi xayril xalqi muusilihum nee na sëñ bi daal làq na mbooleem ñi nga xam ne dañ koo jiitu woon mhm. seeni mbóot ak seeni baatin mel ni ko leen donn te donn googee dafa bàyyeekoo ci yonent bi jëlee ko ci ñoom ñëw jox ko ko te ñoom itam dañ ko ko nangul te nangul gi nga ko nangul loolu incha allah danañ jox wax ndax boo waxee loolu te waxoo ñoom nangu gi ko nangu loola day am ñoo xam dañ lay mën a jàmm kon nii la sëriñ bi jotee wérd wi ci juróomi fan nag ci sawal la ko njëkk a génne jox ko benn naar bu ñuy wax Abdoulahi wax ko ne ko ndax yow yoroon nga wérd mu ne ko yoroon naa wérd mu ne ko bi nga yoroon su fekkee mën nga ko parce que sëñ bi kenn lu baax loolu tam xam dane ko wérd bi nga yoroon su fekkee mën nga koo boole ak sama wérd wi boole leen ñoom ñaar boo yoroon ñaari wérd te mën leen a boole def ko muy ñett soo yoroon ñett te mën leen a boole def ko muy ñeent soo demee nag ba tëli ko jàppal sama wérd ndax boo jàppee sama wird nuurun ala nuur leer la ci kaw leer mel na ni jàpp nga wird si Ahmad Tidiane jàpp nga wird Abdou Khadir Jilani jàpp nga wird asam moo tax soo wirdee maxuus am nga yoolu wird si Ahmad Tidiane am nga yoolu Abdou Khadir Jilani am nga yoolu Abul Asam loolu la yàlla may sëñ Touba ci Ser Saara ci guddi googu ma macha allah Serigne Abdoul Ahad Dieye xam naa bu ñu ko toppee dina yaatu lool waaye dañ ci tënkee ne Serigne Touba Cheikhul Khadim dafa amoon yitte ju rëy ci digganteem ak suñu borom loolu tax na nag ni nga ko waxee léegi jaar na ci ay étapes yu bëri jaar na ci góor yàlla yu bëri di xeeñtu li nga xam ne nii moom la bëggoon te kenn mësu koo am te bu ko amee kenn dootu ko am loolu mën nañ cee jël misaal rek werd bi. Mm-hmm. werd bi buñ ko ñëwaatee wax nga ne mu ngi ko jotee fi nga xam ne nii moo di Sarsara buñ xoolee étape bu liggéeyub Serigne Touba moo xam ca tukki ba Gabon moo xam njaareem Thiéyène wala fii ci moritani Mauritanie étape bu ci am solo la werde bi mu jot ko ci weer bi nga xam ne ni moo gën ci weer yi mooy weeru koor gën ko ci guddi gi gën ci guddi yi mooy ajuma waaye guddi gi ëpp doole guddi yëpp muy guddeeg laylatu xadr kon loolu lépp day daal di daje ci ngëneelu werd wi duñ ci dikkaat kon werd woowu bu ko sëriñ bi amee yaakaar naa ne murit ak mboolem jullit ñoo tax waaye dafa mel ni ñu ci bëri bëri dañu koo xaw a doyadal wala dañ koo xaw a ragal ndax xëy na charte ya ca nekk loolu itam lan nga ci mën a wax. waa loolu de li ma ci mën a wax dama koo jëlee ci góor gu baax gu ñuy wax Baye Mour Diagne Baye Mour Diagne murit yu bëri xam nañ ko mu nekkoon Daare Kamil moom. jamonoy sëriñ saaliw sëriñ saaliw boole woon na ko ci ñi nga xam ne dañuy joxe ndigal ci wirdul maxuus ndax tam wirdi wi faaw nga am ndigal waaye moom moo ma wax ne ma murid yi dañoo ragal di wi lool ndax am na ci ñoo xam ne dañuy jàpp ne suñu ko xasee ba jàpp euh, yu bari dootuñ ko mën a def liggéey sax mën na leen koo tere te demeewul noonu ndax ñu fàttali tam ne ci ñaari waxtu rek lañ koy def fàttaliwaat tam ne manees na koo fay tam ndax sëñ Abo Guèye ñëpp xam nañ ko doomi bàyyi Serigne Gueye ñànka la moom moo ma nettali wax ma ne néeg bii ma ne ko waaw ne ma am na màggalu Touba goo xam ne Serigne Salih Mbacke ak Serigne Souhaïbou mbakke ñëw nañ tëju fi ngir fay ay bor yu amoon ci ma xus ngir màggal ge xat-xat yi waaye nag loolu tam buñ ko wax nit ki jàpp ne tam bu ko yoree kon lu néew rek war naa mën a tax mu bàyyi ko dem di ko fay déedéet day fekk mu nekk dururiya su boobaa mën nga koo fay am na tam ay sart nag sart itam e, bokk na ci jàng alxuraan julli ci mboolo ak yeneen yu bari ndax ñaar yooyu moo ci gën a jafe ñaar yooyu moo ci gën a tiital nit ñi waaye bu dee julli bu dee jàng alxuraan ñu delloo ci waxi sëriñ bi te doon ay murit day mel ni loolu moom war nañ cee tàggatu ba la jël wérde wi ndax sëñ bi dane bépp murit bu ma yaakaar digal naa la bis boo yendo te man alxuraan lu mu néew néew na nga jàng ñetti isib te wérde wi sax sart bi ñaari isib la waaye moom dane murit bi lu mu néew néew lu muy jàng ci alxuraan na ñetti isib kon alxuraan ji moom warul laa tiital ndax loolu sëñ bi digaloon na la ko bu yàgg beneen bi ci sax mooy julli ci mbooloo julli ci mbooloo tam mën naa am yenn saa yi nga am ngànt yi boo ne waxuñ la ne nag boo amee ngànt yi tam day day yàq wérdu bi waaye dafa nekk luñ ca sopp comme julli ni mu amee ay farata ni mu amee ay sunna ni mu amee yuñ sopp noonu tam la wir wérdu bi demee kon ragal gi moom Euh, mën naa mën nañ koo bañ a bañ a bañ a bañ a defee noona beneen bi ci doolee ko nag mooy temps bi mu lay jëlal temps mu lay jëlal itam soo ko xoolee munta weesu vingt cinq minutes maanaam loo yeex yeex wird yu mën koo def ci vingt cinq minutes te yaakaar naa ne léeg-léeg nga jàpp loo xam ne ci bis bi ci sa portable képp dana ëpp vingt cinq minutes kon loolu tam amul amul jafe-jafe euh, sëriñ bi nag mën naa am du la tëb jox la ko waaye yow boo demee laaj ko ñu jox la ko te Eh, mën nañoo joxe rek exemple góor tam mën na koo jël jigéen mën na koo jël ndax man na maa joxe rek exemple ñii ci suñu ginnaaw soxna si jël na wirdu wi sëñ Muntaxa moo ko jox soxna maam Jaara Mbàkke mii di rakkam jël na wirdu wi sëñ Muntaxa moo ko te buñ la ko joxe ñoom suñ la digalee nga joxe ko mën nga koo joxe kilifa yu bari ci daarul minan ak kenn ku ne sa sëriñ ba nga jébbalu nga xam ne mooy sa sëriñ soo demee laaj ko ko ko joxee ndigal rek yow am nga ci ndigal fekkee moom amoon na ci ndigal waaye nag ki ci amutoon ndigal nag mënu faaw ñu xam ko ci kon jàpp naa ne wërta mën a nekk lu ñu ragal waaye mën naa am na doomu aadama ak tayalam ak ñàkk xam nag ñàkk xam tam am na ci ñàkk xam am na ci waaye jàpp naa ne daal nekkul loo xamante ne bii lu compliqué la ba nga xamante ne bii day jël taawu nit ki wala daf koy yàqal ab liggéeyam wala day yàq leneenam boo ko xasee ba jël nag war ngaa sellal bu baax a baax a baax ndax li tax nga war a sellal mooy da ngaa tàmbalee raxas sa bopp te ki tàmbalee raxas boppam warta taqalaat ndabam boo tàmbalee kañ lay set kon nag soo raxasee suy raxas sa ndam mooy nga jël wirdi wi ndax sëñ bi dane naar bi mu ko njëkk a jox dane ko sama wirdi wi ku ko wirdi soo bëggee tàbbi aljana da nga fa tàbbi soo ko bëggu da nga fa tàbbi kon loolu rëy na maqaama rëy na daraja kon loolu boo ko jëlee itam yaakaar naa ne wartu nekk ci fo wartu nekk ci caaxaan eh, ñu ngi nuyu nag sëriñ Modou Kara sunu sëriñ di sunu mag moom itam dañu soog a dab ci jotaay bi moom itam di rakki si waaye di bàyyi léppam at mu nekk mu ñëw daaw bi ñu ko tuddee sëñ Masamba moo fi teewaloon njabootu sëñ Masamba waaye mosu ko wuute da koy ànd ak ñun ci tàmbali ba ci yeex moom itam ñu ngi koy siyaare bi ñu dabee ci plateau bi di ko ko gudd fan ko ànd ak wér ci barke borom Tuubaa ci leeral yu am solo yooyu ci werd bi mu nekk loo xam ne ni comme ni nga ko waxee léegi yaakaar naa ne jafewul te itam li muy jël ci temps bariwul te boo xoolee dundu euh, doomu aadama li ci ëpp solo mooy temps te wax nga ko léegi boo xoolee ni jamono xew léegi rek li xew ci jamono mën nañ cee jël misaal WhatsApp ak réseaux sociaux yi des fois nga gis koo xam ne ni dañ ciy def trois heures de temps wala guddeeg lëmm wala bëccëgu lëmm te amaana lam cay def ay ittey boppam la wala leneen sax loo xam ne amul njariñ lii nag nekk loo xam ne nii maximum trente minutes te itam boo ko dee def mbooleem ay taq-taq yu nekk ci yow mën naa dañ kon yaakaar naa ne euh, képp ku am ndigal jëfandikoo ko war nga koo mën a tàmbali te itam du am benn jafe-jafe kon yàlla nañu suñ borom xiir ci ak sellal ban man koo jël jëfandikoo ko yaatal ko ci anam yëpp di fàttali mbokki taalibe yi rek ñoo ngi fii ci moritani di am jataay bu am solo ci njiitu soxna maam Issa Mbacke ahlu kafe ci niñ koy defee at mu jot waajal ziyaaru Sarsara ren ji nag ñu tudde ko Cheikh Mouhamadul Moustapha nekkoon xalifa bu njëkk bu Serigne Touba Xadim Rasoul kon ñu ngi ziar mboolem murit yi rawatina njabootuk Cheikh Mouhamadul Moustapha tàmbale ci xalifam di Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacke euh, sëñ euh, Abdoul Ahad wax nañ ko léegi xam naa da ciy dikkaat nu mu gën a yaatoo ñu jeexal ci werdu wi werdu wi ki nga xam ne nii am na ndigal jël ko wala ki nga xam ne di ñu ngi ko koy jox ba mu koy def ban njeexit la war a mën a am ci moom. waaw jërëjëf sëñ Abdoulahi ndax wax nga lu am solo ndax boo delloo ci alxuraan inna salaata tanha anil fahsaai wal munkar maanaam alxuraan nee na nit ki su fekkee day julli at te gisul résultat ci ragal yàlla ci sell mën naa bàyyi julli ndax julli la muy jariñ amu loolu rek mooy at wird wi maanaam ki yor wird wi di ko wird waxuma ci baatin ndax xaw ko waaye ci zahir rek war naa mën a def ci moom ay jeexit yu tax ñu xam ne kii mi ngi wér di wér di wi ndax loo xam ne sëñ bi yàlla ni mu toll nguuram gi ak sañ-sañ bi mu am ak yonent bi sallallahu alayhi wa ni mu toll di ngën gi mbindéef yàlla déplacé yonent bi digal ko mu ñëw sar saara jox ko sëriñ bi te xam nga gaay yàlla yi am na yu leen yàlla eh, wan wan ci gént ñu jëfe ko gis nga Ibrahima ak doomam ja ci di la ci Tabaski da koo gént rek waaye dafa appliqué lim gént sëñ bi nag moom nee na nelawut sëñ bi nee na géntut sëñ bi nee na jëneerut sëñ bi nee na gisut benn xaaj ci yonent bi bàyyi ba des waaye jëmmi yonent bi na yonent bi mel la ko gisee ñu jàkkaarloo ñoom ñaar mu yëkkati cadeau bi jox ko ko nga xam ne kon yàllaa ko jox yónent bi yónent bi jox ko sëñ Tuubaa amul intermédiaire kon lu tol noona màgge noonu ku ko jàpp te sellal ko diir bu gàtt danañ gis jeexit bi mu def ci yow amul benn werante ni ki kii jàng alxuraan sellal ko ni kii jàng xasida sellal ko ni ki kii julli sellal ko bépp xeetu jaamu yàlla bu ab jaam jàpp te sellal ko su doxee tuuti dana am résultat boo xamante ni bii du nekk baatin waaye saahir lay nekk soo xam ne ku jàkkaarloo ak moom da xam ne kii laal na lu mat a laal moo tax ma ne nag sarsaara foofu laay jeexalee li tax mu doy waar mooy damay wax ne benn barab la boo xam ne la xew foofu rek la xewe ndax sëñ Tuubaa loolu mi ngi ko wax mbokk mu baax mbokkam mu baax moo xam ne doomi Cheikh Amadou Ndoumbé la ba mu doonee gone di sëñ Modou baan dane ko lu yàlla bind rasulullahi ci gën mën dumbe sax si koo loolu mu ne ko sikkuma ko mbàkke mu ne ko lu yàlla bind nag ahmadou bamba ci man moo tax ma ne sarsaara day barab boo xam ne ngën gi mbindeef ak man gi mbindeef ñoo fa daje kon boobu barab day mag beneen barab te boo demee yow kenn du la ko misaal waaye yaay xool suuf si ak barab bi xam ne fii man gi mbindeef ak mën gi mbindeef ñoo fa daje yàlla nag lu mu digee du fóose la mu ko digoon kabong ca métti du wax waa Caravane baa ngi nii nee naa leen foofa mooy eh, li ñuy tuddee ruuj ji bay naaf bàcc coono yee ca waaye nag Sarsara mooy nag cere ji daa noppi ñu rey ab gàtt def ci li mu war a àndal teg bool bi sef ne bisimilah sukk rek a des seex wanaasu. jërëjëf <laughs> macha allah jërëjëf Cheikh euh, Abdoul Ahad ci kàddu yi am solo yooyu kon xam naa dañuy jox sëriñ euh, Sang Diagne mu daal di yëkkati kàddu yu am solo jëmale ci nag euh, bërëb bu tedd boobu kon sëñ sang ginnaaw bi ñu nuyoo bu baax a baax sëñ euh, Modou Kara di ndokkeel sëñ Dame Café également ci kafe gi macha allah euh, jataay bi murite na lool di waxtaane Serigne Touba di naan kafe Touba sang yi nekk ci sa wet xelam war naa dal bu baax a baax kon sëñ sang ñu ngi waajal dem Sarsara Sarsara nag ngeen yàgg cee ànd ak soxna si kon mel na ni fekk ngeen ci lu bëri te itam xam ngeen ci lu bari soo ñu doon ñëwal tuuti ci taarix bi la jot a jàll ci waajtaay wi ak itam ren ji naka ngeen ko waajale ci matuwaay yeeg lépp lan nga ñuy tënkal. Euh, jërëjëf waaye jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad mel na ne waxtaan wi tënk na lu baroo bari Sarsara ci ak njàlbeen euh, pas-pas. ak ak namm ak ak dogu moo sabab sarsaara di dox ba fii mu agsi xam ngeen ne sëriñ bi kenn mënta jariñu ci moom te amoo pas-pas bu ko mate moo tax soxna su sell su tedd si nga xam ne te moom lañu ñu baaxoo àndal ci sarsaara ca bu jëkk ba léegi loolu la doon doxee ci Sarsara mu nekkal loo xëy na sa njaal benn ga nekkan na lu xaw a ndax nii moyens yi demee léegi demee woon woon nii ko nit ñi xame léegi xame wuñu ko woon noonu mu mel na buñ ko sañoon wax dañuy wax ne yooyu jënd jamono moom soxna su sell si wéetoon na ci waaye mu am ak dogu ak pas-pas xam li fi indi woon maamam ju sell jooju mu jaral ko lu nekk wante jaral goo ko mu ko jaral lu nekk daj na ci lu nekk ndax njaal benn nga waxtu wu nekk agsi nañ ko fii si Sarsara am na jëmmi jamono loo xamante ne eh, fii la fanaan nu ak seet ci benn kër taalibe Cheikh Abdoul Ahad mu doon lu xaw a doy kiimaan ban fa fanaanee ba bët setee nu dellu yenduwaat fii ba tàkkusaan doog faa jógee jëm ci Sarsara kere jàpp naa ne waxtu fajar lañu ñu dugg nu ak seet mu nekkan bis boo xamante ne bis bu yéeme yéeme yéeme la wante soxna si ngir xam gi mu xam li muy sàkku ak fi mu jëm mësta yëgal yaramam walla kenn ku muy àndal lu may di la soññi ne la nanu xam ne sëriñ bi bi mu fi ñëw ci ay coono ak i nattu la fi agsi woon kon ku bëgg dara si lim fi doon wuti fokk nga ñeme loolu noonu lañ ko jàppoo waaye xam ngeen ni tam bi ñu agsi fii si Sarsara ngir booba ñu jóge noo ak dem Sarsara moom itam yëmbuwutam nii mu doonoon lu metti nekk loo xamante ne pour nga tib rek mën a jawal dem fi Sarsara nekk loolu itam yëmbutoon ndax yoon wu mën a tegtaloo amutoon yooyu jëmm jamono waaye lépp rek dëggu gi ak pas-pas bi ak dogu gi moo ne leeral ba li ñu bëgg ci sëriñ bi sëriñ bi mën na koo may loole am na ay jëmm jamono yoo xam ne nii nga xëy na tey ni lañ mën a waxee ne xéewal yi maase na ndox mi lépp mat na courant bi lépp mat na booba yëmbawutoon noonu kon tey ba mu demee ba jëmmi jamono mu demee nii booba jëmmi jamono tam wax naa la ne mbooloo mi tolluwutoon nii ñu bari mosuñu jóg ngir xalaat ne war nañoo dem sax Sarsara nga xëy na mën nañoo jàpp ne bu wér ne ñi nga dégg ñu bare bare ñuy waaj di dem Sarsara jëm ñu soxna su tedd si Maam Isa Mbàkke Ahlu Kafe si baax ak Serigne ci moom la ko jaarale muy loo xam ne itam si njaal benn nga xam ngeen ne def nañ fa comme nii def am na fi moo xamante ne sëñ Moudou Mamour Amar su ma juumul moo doon def waxtaan wa boobu Serigne Fallou Mbacke mu si Mourtada fekke war na loola kon li ma bëgg a tënk si gàttal mooy li nga xëy na moo dalan Serigne Touba diggante nag Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam soxna su sell si dafa waxoon ne su ma doon góor dafa jóg taxaw ne li góor ñi di bëgg. soxna yu sell ya bëggoon ko loolu laay bëgg te loolu laay sàkku la sama maam ja nekke woon ba ñëw Sarsara nekk fi ba am ngërëmul sëriñ bi loolu laay sàkku te yaakaar naa ne jeexu fi moo tax mu samp nag pas-pas ak dëggu ak ak dogu nekk ca loola ba am li nga xamante ne mooy li nga xamante ne tey mooy li ko may lii tey muy fu mu tuddee Sarsara ñu mën a nangu ne soxna ma sa Mbàkke mooy ki nga xamante ne moo ko yaatal ba kenn ku nekk mën a dem fi nga xamante ne moo di Sarsara ñëw nañ fi taw te si yoon yi ñëw nañ fi ak coono yoo xëy ne buñ ko doon lim du jeex soxna si daj na fi lu nekk waaye Serigne Touba jaral ko lu nekk kon daal si njàlbeen gi li nga xëy ne moom la ñu si man a tënkal foofu mooy nii lañ njàlbeenoo Sarsara yàlla dogal na itam comme ni nga ko waxee ci Sarsara yu njëkk ya bokk naa si ñi nga xamante ne nii ngeen ko. waral na ko kon lu si bare bari xam nañ ko fekke nañ ko waaye daal Sarsara ak coonaa ko laloon ak coono mooy li ko laloon waaye ak dëggu ak Pastef nag moo taxan coono bi ak nitiir yi mësuñu ko yëg mësuñu ko faale ba tey yàlla defal résultat bi kon loolu rek lañ ci doon kiyaat. xam naa da ngay desandi foofu ndax ren ji ñu ngi koy waajal fii ak gannaaw ëllëg incha allah matuwaay yeeg lépp lu ngeen waajal ci tënk euh, loolu lañ ci mën a leeral. waaw euh, comme ni ko Cheikh Abdoul Ahad sunu jëwriñ waxee léegi rek. sëriñ bi saa boo waaxoo jëm ci moom dafa lay gàttandal boppam ren jii nag sëriñ bi def na ak gàttandu goo xamante ne ñëpp xam na ne sëriñ bi def na ci ak gàttandu ndax gis nañu nun donte bokkuñu si doon lijjanti yoon wi waaye moom Cheikh Abdoul Ahad mi ak ku mel ne Dame Diop mi ak ñi mu ko daan àndal coono yi ñu daan jànkonteel ak ni nga xamante ne noonu lañu daan sonne si yoon yi mel na ne yàlla sunu borom jàppandi la loolu lépp tey jii ba gën a xéwale nu oote ak nam daan amee. ndax wax naa leen ne agsi nañu fii fajar agsi nañ fi wax waxtu nekk tawte nañ ci yoon def lu nekk fee nga xamante ne moom la ñuy lijjanti papier yi daan nañ fi nekk presque ba ay onze heures minuit ñu def fa si jëm ci Nouakchott te loolu lépp tey ci baax ak sëriñ bi ak ak womatam ak ak gattandoom tax na lépp jàpp nañu waaye nag ci jàmbaar yi nga xamante ne ñooy fiite maam Issa ndeyjoor féete ko càmmoñ muy ñooñu ma doon tudde léegi te du ñu toqi du du ñu nelaw guddi duñ ne eh moo tax loolu lépp fu fépp foo xëy ne seen loxo war na faa jot wala seen kàddu war faa dem wala ñu war a dox dem fa dem nañ fa ba yoonu yëpp wax dëgg yàlla nooy na net ba nga liñ yomb na itam yomb goo xamante ne mësuñu ko am ci seen saa kon ñoom ñi nga xëy ne ay jëwriñ lañ dem doon dox lu mel noonu muy ku mel na seex Cheikh Abdou Ahad ku mel na daam Diop ku mel ne Dame Kara ak mboolem équipe ñu ko àndal doon ko liggéeyal wax dëgg yàlla tax nañ tey sunu sarsaara ji dikk sarsaara 22h47. ñu ngi koy def fi nga xamante ne moom ñu ngi koy doog a def Nouakchott ci mboolem li ma si ñëw Sarsara kon yoon wi macha allah. jërëjëf euh, Serigne Sang Diagne macha allah historique bi am na solo li nga wax itam ci matuwaay yi nga xam ne nii jël ngeen ko dal na am xel lool kon yàlla nañu ci yàlla yóbboog jàmm ñu daje fa ak ngërëmal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul kon mu ngi mel ni ñu ngi nekk ci fi ñu bëgg a matale jataay bi ni niñ ko waxee woon ci njàlbeen gi rek Serigne Moustapha euh, Massamba. nekk itam sëñ Moustapha Dieye Massamba nekk itam ab jàngkat boobu jàngkatu xasida moom itam mu ngi nii ci jataay bi waxoon nañ ne ginnaaw bi ko sëñ Bamba tijjee moom la ñuy jox mu daal di koy tëj waaye balay boobu dañuy dal di lim rek mbooleem presse bi nga xam ne nii jamono yi ñu ngi jàpp ci liggéey bi di ko yaatal ba fu doom aadama mën a nekk ci àdduna di ko seetaan mën nañ ci lim 28 pro ci njiitu sëriñ Bekay Ndiaye ak Serigne Sidi Diakhaté suñu info Serigne Cheikh Gueye teewal leen fi ndindi ak ci Serigne Assane Diop Cheikh Ibrahima Fall point com Serigne Fallou tubaab Touba Belel point net Serigne Moustapha Niass moom itam ñu noon ko lool waaye ren ji yàlla dafa dogal ñëwul kon xam naa ñu ngi koy fasaale bu baax a baax subaak léegi ñu ngi déggante siwal point net Serigne Mbacke Dieng moom itam mbokk ci technicien yi Touba Vision ci njiitu sëriñ Khadim Seck moom itam mu ngi fi Touba Pro Serigne Cheikh sàmb ku gis taxawaayam ndong lii di wax Abdoulaye Faye euh, Bantamba TV moom itam di jàpp ci liggéey bi waaye di leen fàttali itam ne tey rek am na ay éléments journal yu am solo yoo xam ne ni def nañ ko Almourdiya TV jàllale na ko 2S TV jàllale na ko Lamp Fall TV jàllale na ko kon lépp rek day daal di wone barkeel ak jàpp gu am solo gi nga xam ne ni presse bi ñu ngi koy jàpp ci yaatal liggéeyub Serigne Touba Cheikhul Khadim ànd ko ak soxna maam sa Mbacke kon xam naa kon sëñ Abdou Lahad Diomb dafa am kàddu yoo bëgg mottali bala ñoo jox euh, Serigne Moustapha waaw sëñ Abdoulahi xam naa nag euh, kàddu yi dama koy tënk rek ndax maa bëggoon tam bu sëñ Moustapha daanelee sëñ Modou Kara mi di kilifa nga xam ne moom mooy suñu lépp moom la ñuy liggéeyal mm, te it moo sant Mbàkke mooy sutub Cheikh Massamba mu tëjëlam jotaay bi léegi tam sëñ Moustapha mi may fàttali ne ma am na yeneen kilifa yu fi teew mooy soxna soxna Assou Gawane Mbàkke moom sëñ Abdoul Karam ak euh, soxna Astu Mbàkke moom soxna may Maymunatu moom Cheikh Mamadou Moustapha kilifa yu bari na teew nañ fi danañ ci ñëwaat waaye euh, li ma bëggoon a wax rek tëjee ko sëñ Abdoulahi mooy euh, sëñ Tuubaa sunu boroom dafa dajale lépp ci loxoom loolu nag yàlla la soob ndax ku doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon doon keneen du la jomm te ñëpp nangu nañ ne moo doon yonent bi ndax mooy rasulullahi Eh, xam naa lii dama koy wax rek ci olof waaye boo demee ci muqaddamaat dafa wax fi mu jaar ba Abu Bakrin li mu am ci yonent bi mu jox ko ko Omar li mu am ci yonent bi mu jox ko ko Ousmane li am ci yonent bi mu jox ko ko Aliou am ci yonent bi mu jox ko ko loolu nag bu mu jaaxal kenn ndax ni ci yàlla tabe nañ waaye yëmut foofu nag ndax ba muy conclure daa wax ne ashaaba rasulillahi inni xadimuhu muhiban lakum fillahi wallahu yëg lahu dafa mel ni dafa informé saxaaba yi ci xamal leneen man may liggéey yonent bi maay liggéey ko yonent bi noonu mu doon ne nag yonent bi ak saxaaba yi noonu itam la doon ne borom tarixa yu mag yooyu yii ak mboolem ku daan tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp nee na la ñu doon defal yonent bi bi ma ñëwee ba koy def ñoom dañoo mujj yee ma ko lañ ci am lépp ñu jox ma ko nga xam ne bu doon séddale tey kon sëñ bi mooy saam ku ne teggi ab saamam waaye lépp ngi ci sëriñ bi loolu nag wenn bëy rek laa koy résumé toujours samay waxtaan te mooy li sëñ Baye Jaxate wax ne lu dee fi wut lépp ngi tey jii def ko fi yow lu dee fi wut nekkatul màkkaa ki faasa ki xaay fu as njariñ masa dekk ak barke jóg na fa tey ay xotta des fépp yow képp yaa di nga ñaay kon nag ginnaaw ñun ki nu yor lépp ngi ci moom kon war nañoo sant suñu boroom waaye soxna si nag ñu ndokkeel ko ci njàmbaar gi nga xam ne def na ko ndax am na loo xam ne doo tudd tur damaa tàggu génn kilifa gu mag ne ko dañuy dem Sarsara mu ne ma ci tàngaay wi ma ne ko mu ne ma loolu wóorut ndax man Sarsara dem naa fa waaye Sarsara amul ker amul courant amul am marché du ab dëkk sa oto sax bu fa paanee pour nga dépanner ko lu jafe lay doon ndax faaw nga wut sinuwaa soot gii ku la jël si nga am fitu nag yóbbu fa ay junni junniy nit loolu lu wóoradi la lii la ma wax te kilifa gu mag la te ñun nag def nañ ko ay yoon wax dëgg yàlla sëñ bi di ñu suturaal di ñu dimbale waaye dañoo xool la ma ngeen doon daj rek ñu xam ne ku bëgg dara rek def dara moo tax soxna si jël volonté boobu moom itam am na lu ko suñu borom defal lu doy waar loo xam koo taxawee góor taxawee na ko sax ndax sëñ Sidi moo fi ne waaye nag ñoom fii lañ ne ci Mauritanie sëñ bopp sëñ bi wax na ko démb waaye moom miy jóge Sénégal ànd ak délégation yi ak liy jafe-jafe ci yoon wi mu xuus ba àgg gisoon naa gaa yi defoon benn affiche bind ca lu ma neex euh, fàtte naa nag na ko bekkaay tënke wala ñoom sama gaayee euh, xaw ma lan de euh, dessert ah la reine de dessert waa dessert bi dafa metti bu doon góor na ñu ne góor day laxasaayu jàmbaar la mais jigéen di di sóobu montagne yi ak mbokk yi baax yi muy àndal ñu bàyyi seen lépp bàyyi seen i climatiseur bàyyi seen i néeg bàyyi seen lekk bàyyi seen naan seen maam jaral leen ko bu ñu dem benn yoon ne baax na waaye soxna ami mu sëñ mur laa dafa am lu mas a foofa dane ina lazina ila sarsara xat xasadu ziyaarati faaraxu daarin aw saara daaw ndax bi nga ñëwaatee defaan nga bàkkaar boo defaatee bàkkaar dellul parce que da nga koy faxasaat su fekkee nag boo demee doo defaat bàkkaar bul dellu waaye fee yaa ngi def bàkkaar del dellu ngir am faaraxu daarin aw saara kon moom loolu la gëm nee nag feek mi ngi gis benn murit bu demagut sarsaara muy woote sarsaara ndax daa déggun sëriñ Saliou ne feeg mi ngi gis benn murit bu demagut xelkom muy woote xelkom nee na loolu lay rey sëriñ Saliou ci liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf euh, waaw jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad comme ni ko soxna si waxee léegi rek bala ñoo tëj euh, ak xasida euh, ñi nga xam ne ni ñoo di imaam yi ku ci jàpp ne rek ñu daal di lay jox nga barkelu ndax euh, ndaje murit moo demee noonu ndax ñun moom suñ lépp rek ci kilifteef la lépp lu ñu sang si digal rek loolu lañuy daal def kon xam naa ne sëñ Omar xam naa ne day daal di jege waaye bale boobu itam ñu leen di xamal ne euh, ñi nga xam ne ñoo di waa di UCAB FM UCAB TV di benn ci këru taskatu xibaar yi ñoom itam ñu ngi koy jàllale saa su nekk di rafetlu bu baax a baax teewaayu waa Croix Rouge. ci teewaayu Serigne Abdoul Ahad Seck ak Serigne Mbaye Kassé ñetti at a ngi saa su nekk ñuy ànd ak soxna si di taxaw taxawaay bu am solo ci li nga xam ne ni moo di ziyaaru Sarsara kon ki nga xam ne moo di ki war a yëkkati kàddu gi Serigne Omar ci sëñ Omar Ndiaye bokk ci waa caravane Mayomba moom itam ñu jox ko ay simili yu gàtt rek mu daal di yëkkati ñu door a jox sëñ Moustapha ñu tëj jataay bi incha allah ndax dafa tënku ci ay waxtu bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu. ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa di ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifatul am yàlla yàggal ko fi lool moo njabootu Sëñ Tuubaa gi comme ni ngeen ko waxee rek. ñun ñooy délégation bu Tou Touba Gabon yore itam karawaanu Mayumba ñëw ñu yebal kilifa ya ñoom jëwriñ Cheikh Mbeng ak ña nga xamante ni ñoo ko jàppale ñëpp waaye kenn ku ne xam na ni karawaanu Mayumba ki nga xamante ni moo ko initié di Serigne Fallou Bousso mu sëñ mu sëñ Aliou Bousso nekkan Gabon di fa liggéey ba ba di suñu borom dogal mu jiite fa murid yëpp ba karawaan maayam ñu commencé ko ba soxna isam ni balay si buri yàlla na yàgg ci taxawaay bii mu taxaw gane sunu ñëw bokk ak ñun karawaan ba Euh, ànd koog soxna su baax suñuy wax soxna maam jaara buso moom soxna may galas te mu nelaw ci fan yële yal na yàlla yokku leeram ñu ànd dem Mayomba mbir mi nag ni ngeen ko waxee rek sëñ Ablaye sëñ wax ko moom moo tax ñu teew fi di annoncé waale karawaanu Mayomba des na ko def ren mboolooy mi nga moom la ñu imaam Massaer Fall bokk ca di imaamu Montagne Sainte jumaa yi Serigne Touba ja nekk ca ca ca capitalu Gabon Libreville ak ku ñuy wax sëñ Kàllaam Ñang ak mboole ko mboole mbokki taalibe yi ngi war a ñëw danoo ak seegul waaye dina gën a leer incha allah dinañ ci gën a taxaw fas yéene ko leeral ànd koog yéen comme ni ngeen ko waxee fas yéene dem yomba lépp la nga xamante ne aju na ca te nan koy programmer ak nan ko war a doxalee bala noo dem bu soobee yàlla fii suba wala itam na bu ñu yeggee Sarsara den na ko fa gën a leeral. macha allah bu soobee yàlla ak yonent bi. ci barke Sëñ Tuubaa. waaye kon nag kon ni ngeen a xamee. Uh-huh. kii doon wax ak yéen di euh, Serigne Omar Ndiaye di porte parole Touba Libreville Gabon euh, di yëkkati katu saayit kon ñu barkeelu ci ñetti baat ci barke Sëñ Tuubaa alam du wa maandilaahi ala nabii waladi abdallahi alhamdu wa sukru maandilaahi ala nabii waladi abdallahi lillaahi bisigil akimi an xalib maa nabii waladi abdul muttalib badadali samradul asimi rabbi bi jaay mustafa ibnu asimi li jaade rabbi bi nawaali xat ana bil mustafa مختار من أبل المنعى دواي استجاب بالمعصية rabbi yabil muxtaar min xusay barke borom tubaa ñoo ngi jégalu ñëpp tey siyaar ñëpp. yàlla yàbb yóbbu ci bis ba yàlla yàgg ñëw kama yàgg ñëw siyaar si ci barke sëñ Tuuba waaye nag jërëjëf sëñ Ndiaye ci kaddu yi am solo yooyu kon ni ñu ko waxee woon rek comme dañoo tënku ci waxtu rek dañuy daal di jeexal euh, jataay bi kon dañuy jox sëñ Moustapha Dieye Massamba mu yëkkati ay bayt yu gàtt moom itam ndax waxtu wi sax matoon na sëkk ndax euh, da di jataayu murit moo demee nii waaye teewaayu caravane wala teewaayu kuréelu Mayombe Libreville ci màggaluk Sarsara lépp day firndeel rek ne ñoo bokk ki ñuy liggéeyal muy Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon sëñ Moustapha ci xasida gu gàtt rek. nga daal di yëkkati bayit ñu daal di toxal jëmm yi incha ba beneen yoon amdi wa sukri liman kulli bihi saara law urdan duna suqtinin da sarsaara law sana iwaril waanin بلا سقة مسخاد لي من بني ديمان أنصار لله كل لدى أبار مكرمة من هرتحلنا وفيها جم من سارا إن الذي لا إله سرزار قد قصدوه سيارتي فارقوا daarayni aw saaraw jërëjëf sëriñ Moustapha macha allah kon xam naa ne dañuy jox sëriñ euh, Modou Kara rek mu def ñaan waaye suñu mbokk techniciens yi également ñu ngi wax ne bu sëriñ Moustapha bu sëriñ euh, Modou Kara ñaanee ba pare dinañ dikkaat ak ñun tuuti rek ci benn reportage bu am solo boo xam ne nii def nañ ko ci yoon wi. comme sa ñu fàttali ñi nga xam ne nii xëy na jote ñu gun koo seetaan ñu bàyyi ko xel kon bu sëñ bi defee ñaan rek ñu mayat ñu muy yu gàtt rek ànd ak yéen ci reportage boobu kon sëriñ bi bisimilah. waaw jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziare di leen dalal. di sant yàlla bu baax ci jataay bi du ko rafetlu tey ñaan yàlla ñu teewe ko nag ni déwén te suñu jógee Tuubaa ba agsi fii ak ba fa ñu jëm jéego bu fi jéegoor yàlla na sëriñ bi defal aw yiw di sant soxna si ci jiite gim mu jiite lii ak boole gi mu ci boole ndax ku jëm ci sëriñ Tuubaa ne ñu dem moom amutoo fayam la mën a fayee lu mu waaw rek kon yàlla nañu yàlla xiir ñu jëfe ndigal tey hmm, sarsaara nag moom metti woon na waaye métteetut waaye lu metti metti bu ñu xoolee suñ maam yi fi daan ñëw daal di mën a muñ mettit woowee ndax ñoom ñu bari des nañ ci yoon wi ñaar bi dañ daan ba àgg duñu am lu dañ daan xiiw ban rek am ci ñaari type nekk faak sëriñ bi loolu ku ko dégg mbaa ñu nettalee ko loo fi daj war nga ko muñ sëriñ Touba lii fii ba mu fay dem ku fa dem ci jamono yooyu xam ne foofu naqaroon dem lool te boobu oto amul ci gileem dong lañu daan wax ñun ñi nga xam ne dañuy xëy Tuubaa nag ñëw nu wax sot noppalu demaat sarsar ba noppi di jàmbat dañoo ñàkk jom rek waaye jom jom yoroon bu ko amoon wala jom ji suñu maam amoon dara duñ jàmbat dara dañuy góorgóorlu rek nga delaat Sénégal kon yàlla ñu ko euh, sant bu baax nag sëñ sa Bara Fall nga xam ne ñu ngi koy defee fii ci këram ci ëttub sëriñ sàmba di ko ñaanal mooy mu yàgg ko def yàlla yokk xéwalam ak wërsëgam ci barke sëriñ Touba Sarsara nag soxna si moom li ci baax mooy at bu ne rek ñu fexe ba yóbbu ko xumus sa dem moom loolu loolu daal ku fi ñëw loolu nga war a sasoo ndax loolu ndimbal loo xam ni aju bari dañ ci fajoo te kooku lu mu xam ci loolu da nga ko am. kon dañuy sasoo rek kenn ku ci nekk bu dee ngay fexe ba boo ñëw àndaale ko xumus sa ñëw mooy tax ñëpp ñu xam Sarsara ah, li ñu sëriñ bi digal teewaay bi ku ko xam da nga fay nit ñaareel bi it. ñuy góorgóorlu ci xéewal ya fay dem ndax foofu dëkk boo xam ne lu fa yóbbu lu fa doo ko fekk ndax euh, sërif bañ fa fekk at ma ñu fa njëkk dem fekk nañ fa ay coono waaye sëriñ bi defal na ci soxna si ak mboolem taalibe bu mu àndaloon ndax ba ñu demee day dafa ni moom day taw dafa jot sëkk te giléem yi dañoo mar te xiif nañ ñu ne ko ñii di sëti Serigne Touba lañ mu ne ah fii di Serigne Touba def na fi lu ne yéen nag tey bu ngeen bokkee ci Serigne Touba naa leen natt ndax sama gil mi mar nañ te xiif nañ ñu faran ci këram ndox laa bëgg boobee taw ba mu fa taw mus taw murtani bañ fanaanee keroog la jaaju ni bu ngeen fi jëwati ba lépp lu ngeen lekk maa koy def kon kooku Serigne Touba feeñ wane na fa boppam te léppam noonu la def su fekkee nag ki nga xam ne day gis ne sëtu Sëñ Tuubaa yi nattaju mu feeñu ko rek sàggama ak ña ci bokk nag jëm fa kon nañuy fas te fas fas fas biir ak yéene ji li jaajëfal soxna si nag mbir mi metti na lool waaye mi ngi yomb lool waaye nag la ma rek bul daj bul daas ku ci may a duggit bu ci génne sa bopp ndax nit ñi moom da nga yëkk dara ba mu jàng ci kaw nit ko àdduna dikk jaar ci suuf ba koo dunde lu ne gis nañ ko ci wet gu ne

suñu techniciens yi ñi nga xam ne ni ñoo ne ci wàllu réalisation bi wàllu caméra bi wàllu lépp lu ca jëm rek dañ leen di jox euh, li nga xam ne moo di antenne bi ñu daal di projeté vidéo bu am solo boobu kon Serigne Sidi Diakhaté à vous l'antenne xam ngeen ne nag ñu ngi fii euh, moo nga xam ne moom mooy Nouakchott ci Daaru Naim kër Serigne Sabara Fall fa lañ doon amale plateau bi ànd ceeg ONG Euhlou Café di partenaire bi jiitu ci suñuy eh, partenaires yi nga xam ne ñoo ñuy gunge ci événement bi yëpp waaye tamit nag ànd ak suñuy yeneen partenaires yoo xam ne gis ngeen ne noonu ñuy défilé ci suuf ci bànn bi mën nañ cee wax ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Touba Univers Management eh, commune bu Touba Mosquée boutique Total Kër si lay Frère ONG Euhlou kafe gis ngeen ko noonu ak ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy waa Touba ca kanam mbokk yi ñooñu ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooñu gunge ci événement bi léegi nga xam ne particularité bi ren gis ngeen ni nga xam ne noonu la ko mbokk yi waajalee waaye nag fii ci Daaru Naim dañ koy beral ak cant bu baax a baax ki nga xam ne moom mooy Serigne Sabara Fall ci ak nu mu àndee ñi nga xam ne ñoom ñooy kuréel bi ñoom ñëpp ñu fas yéene teeru depuis biig ba léegi soxna si ak délégation bi mu àndal euh, Serigne Sabara Fall ñu ngi fii ci Daaru Naim sa kër plateau bi léegi la jeex euh, naka nga dundee li nga xam ne moom moo fi xew tey sa buntu kër. alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sëñ Moustapha di ko ñaanal xaare ko àjjana ci gën a ak bopp gannaaw loolu ñu ngi sant bu baax di am mbégte ak kontaante gu rëy rëy ci teewaay bi ngeen fi teew waxtu wi biig ci jiitul soxna maam Issa Mbacke ëhlu kafe sëñ du Fata Xari di ko ñaanal yàlla wér ak taw feex mucc ak xéewal ca kaw ci kanam rek ca kaw ci kanam rek ca kaw ci kanam rek Mbacke bul tiit bu ragal ca kaw ci kanam rek eh, ñu ngi leen di gërëm bu baax yéen waa tele bi di leen sant di sant tele yi fi ñëw ak rajo yi fi ñëw yëpp média bi yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen taxawaay gis nañu démb ba léegi seen taxawaay ak seen ak ni ngeen ànd ñun ak soxna si ñu am ci mbégte lool bu yaatu lool yàlla xam mi nga xam ne moo yor lépp te man lépp yàlla nu yàlla boole defal sutura defal leen ko defal ko mboolu mu jullit eh, kontaan gi nu yor nag fees na sunu xol parce que lu toll na deru si sëñ Tuubaa di romb dëkk bi ak nu mu rëyee ak patron yi fi nekk ak borom doole yi fi nekk mu ñëw ci ñun ñu ñàkk solo ñi dugg suñu biir kër di fanaan bokk ak ay mbo doomi baayam ak ay rakam ah loolu de tabarkalla tawféexul sëñ Tuubaa rek la ak Seex Masamba mais du sunu du sunu lenn nag parce que ñun tekkiwuñu dara mënuñu dara amoon amuñu dara mais sëñ Tuubaa moom am Seex Masamba mi nu yaakaar di sunu bunt ci yoon wet xanaa moo ñu ko jagleel rek wante du sunu dara soxna si nag moom sunu jigéen la sunu sëriñ la suñu lépp la parce que amul lu mënu defalul am na fa nga xam ne sunu tur egg na fa yàlla ak jëm moo tax mu egg fa bu ñu ba bay di taxaw ci média di wax moo grâce waaw gannaaw yàlla ak yeneen ba moo tax. waaw parce que nag démb woon du tey soxna si bi mu fii ñëw à ah, 93 metti woon na lool Sarsara metti woon na eh, parce que am na ay fan dañuy fanaan ci àll bi ci carrefour bi la ñuy fanaan taw du sotti suñu ko ba bët set te soxna si xaddiwul bàyyiwul booba benn oto la ñuy yóbbu wala ñaar leesa dañuy jéem sax di dox yoon wi pour eggale trente eh, trente cinq kilomètres yi mais duñ ko man soxna si ànd ak ñun nekk jigéen ju nekk mën góor duñ koy ñaanal yàlla rek yàlla jàppale ko lépp lu ci sonn rek yàlla na ci dajeeg ngërëm maam soxna jaar bu sa waaw amul benn tawarkal la gërëm ñëpp nag ak ñi ànd ak moom di gërëmeet señ karaam yi nga xam ne bi mu jógee ñëw fekk si ko jàppale ko ba mu dugg ci liggéey beet ba léegi dellu ci gannaaw kon ñu ngi koy gërëm moomet bu baax ak magi taalibe yi mu àndal e ñu leen gërëm di leen sant eh, di gërëmeet ki nga xam ne moo yor mbiru kàddu soxna si muy sëñ Abdoul Ahad Dieye eh, ku baax ku tabe ku xam li muy def xam fi muy teg tànkam ku ànd ak soxna si ci jëfin ju rafet ju tedd tegu ci yoon ñu leen di gërëm bu baax di leen sant di ñaan yàlla suñu borom yàlla na ko téyeet at yu bare bare na dund téeméer at ak juróom fukk na bokk koog moom jërë leen jëf jërëjëf sëriñ Sa Bara Fall mbokk yi jërë ngeen jëf xam naa ne Ablaye fay bala ma lay delloo kàddu gi dañuy mhm. fàttali mbokk yi ñuy seetaan ne li nga xam ne moom mooy production ci trajet bi première deuxième ba troisième partie ci li nga xam ne moom mooy caravane bi li ko dalee Touba Daaru Manaan ba fi nga xam ne moom mooy ci euh, xam ne moom mooy kër Serigne Touba bi nekk fii ci Nouakchott yooyu yëpp dangeen ngeen di continuer di ko seetaan ci chaîne chaîne yooyu nga xam ne sànq Ablaye Faye euh, lim na ko ci en direct fii nga xam ne moom mooy Nouakchott Ziar Sarsara édition 2022. jërëjëf euh, Serigne di jaxate mais jërëjëf également ñi nga xam ne ñoo di la partie technique. niñ ko waxee léegi rek am na projection yu gàtt yu am solo yoo xam ne ni dañ ko bëgg a dundale jataay bi waaye dundale ko guddi gi ñu ànd ci ak yéen bu fekkee jàpp ni na Touba ca kanam Touba univers management commune bu Touba mosquée boutique Total kër Xaadim Sylla et frère ONG Eulo kafe ñoo leen di gunge ci seen ziar Sarsara édition 2022 ay ca murit Touba ca kanam weer wi dee na wajalilaayi maskani Touba Sëriñ Touba liggéeyal ko warteef la ci ñépp ku ko bëgg liggéeyal ci xam-xam ak yarub ndaw ñi ci gu yaram ci néew ji doole yi ci mbedd Touba yi ci leerug Touba ci ndoxum naan mu sell bi si wutal ndaw ñi am xëy da ngay sax dàkk ci joxe weer wu nekk 1000 francs CFA maanaam ñaari téeméer dong. benn bu ne rek ñaari na fexe fi ñaari téeméeri na ko jëpp dégg ba mor yëpp nañ ko dégg. fukki mu saade ak juróom-ñeent yu yu ko yéene te mënuñu ko ma ma joxeel leen mu ak ñoom ñu ngi nii.